asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa àdduna ñu ngi nuyuwaat ñëpp di ziaraat ñëpp di remercier ñëpp ñi nga xam te ne ñu ngi suivre suñu analyse alors tey waa lu xew TV ñoo ñëwaat di leen defalaat beneen analyse bu ndaw. donc bala ñuy jàll ci point bi nga xam te ne moom lañ bëgg a aborder tey ñu ngi leen di yëgal ni dañ fi am ñoo xam ni dañuy monter ay vidéo ay photo lu ci mel ni photo anniversaire photo mariage vidéo anniversaire vidéo mariage. comme genre photo yi di daw ci écran bi ak yeneen ak yeneen ku ci bëgg mën nga ñoo contacter ci numéro bii ñu leen di waaj a jox di 77 666 56 70 numéro bi également am na whatsapp donc ku bëgg vidéo montage wala photo montage pour sa anniversaire wala sa mariage wala ak lépp lu mën di doon nga contacter ñu ci numéro bii ñu mën ci liggéey ak yow incha allah alors sans plus tarder dañuy dem tey ci point bi nga xam ne moom lañ bëgg a aborder. donc dañuy rester toujours ci série maîtresse d'un homme marié. dafa am ñu bëri ñu ci interpellé ci bi nga xam ne moo jëm ci côté goro yi te loolu dafa nekk tamit message bu am solo également parce que gis nañ yaay ñoom Cheikh ni muy traité Jalika tey loolu dañ ko gis ci kër yu bëree bëri tey sa doom am soxna ngay maltraité sa soxnay doom raison yi dafa bëri am na ñi nga xamante ni si dañu bëggaloon seen doom keneen. mu bàyyi ko fa dem takk keneen ñuy budd xotal xale bu jigéen bi nga xam ne moo seen doom takk ci kër gi am na ñoo xam te ne tamit dañuy ñëw juste nit ki neexu leen neexu leen jeex na et je pense que tey kilifa day boole njabooti ñépp sa doom bu takkee soxna indi ko ci kër gi da nga war a jël soxnaam soosu def ko comme sa doom boo ko defee rek jàmm am mais soo bëggee jël sa doom teg ko ci kaw jël soxnaam maanaam doomi jàmbur boo ko bund xataal lu mu lu baax doo ko gis parce que nit ki soo ko bañee lu mu def ci lu baax doo ko gis ay faayam rek ngay gis mais fu faay amul sax di nga fa jéem a créer faay ba def ko fa mais tamit ñu xam ni waajur wu ne sàmm la ëllëg boo taxawee ci kanamu sunu borom dina la laaj nan nga doon sàmmee sa njaboot. te yéene suñu yaay booy kenn yéenewul loolu sa yaay ëllëg mu taxaw di layoo ak yow. donc ñu ngi leen di ñaan yéen yaay booy xoolal leen bu baax ni ngeen di yore seen njaboot. te yaakaar naa tey nga am doom. mu jël soxna indi ko ci kër gi kon jàpp naa ne sa doom boobu ak soxnaa si mu takk ñoom ñëpp yaa leen boole yilif kon ñoom ñëpp yaa leen boole war leen a sàmm war leen a teg ci yoon sa soxnay doom sax mën na jàdd yoon nga woo ko yedd ko lépp teg ko ci yoon parce que tey comme yow yaa ko jiitu ci sëy kon yaa ko war a mën a expliquer ni nga xam te ne noonu lay doxale ci biir këram ba war a mën a defar ménage am rawatina nag nga am goro bu mel ni Jalika nga xam te ni elle est ñu ngi def lim mën a lim mënul lépp pour gérer sa ëm kon kooku yaakaar naan neex na dëkkal mu ngi def lépp pour yow sa wàllu bopp nga am li la neex mais da ngay gis ay yenn maire yoo xam te ni seen goro yi da defal lu ne mais duñ ko nangoo gis day am ci ay nit mais loolu dafa doon loo xamante ni ku koy def ku ne soo xalaatee ëllëg rek di ko bàyyi ndax sunu borom day àtte te dina la laaj ëllëg na nga doon sàmmee sa njaboot. donc ñu ngi ñaan ñëpp ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax parce que dafa doon loo xam ni dafa am ñu koy gis ñu bëri di ko dund mu doon phénomène boo xam ni dafa bëri bari na sëy yoo xam ni tas na gore yi ñoo ko tas bari na sëy yoo xam te neexul goro yi ñoom ñoo tax mu naqari bëri na fi bëri na fi trop macha allah nag am na goro yoo xamante ni ñoom amuñu morom ñu ngi def la tout di juboole seen doom yi di def la tout ba seen sëyi doom yi di mën a jaar ci yoon. donc ñoon ñu ngi leen di encourager di leen féliciter ci loolu te ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom ñooy def contraire ba ñu leen di ñaaxaat ñu jéem a xool ci ñooñu parce que lu baax rek moo am solo donc tey vidéo bi di gudd loolu rek lañu woon nañ ko ci sànni di tuubaat di jégalu bu baax a baax comme ni ñu koy waxee wax ji képp comme mu laal rek ñu ngi tuub ci yow lu fi dëng rek ngeen xam ne ci mën mii di wax la mais lu fi baax rek ngeen xam ne ndimbalu suñu boroom la ñu ngi tuubaat di jégaluwaat bu wér a wér leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp bépp doomu aadama rawatina umma islamique bépp la nga xamante ni si moo xew ca Nouvelle-Zélande ñu ngi koy masawu ñëpp te ñaan yàlla yàlla yàlla def jàmm ci àdduna bépp te lu mel noonu bañ koy amati. donc ñu ngi leen jox dig daje ci beneen analyse à très bientôt et merci à tout le